Cheikh Muhammadul Muqtada Mbake ibnu Cheikh Muhammadul Fadal ibnu Qadim Rasul dimanche fukki fan ci weeru novembre atum 2024 ji ya. mu demoon ci dëkk bu bi di Daaru Naim. di dëkkub cheikh Muhammadul mustapha al karim mom cheikh Muhammadul muqtada Mbake ibnu cheikh Muhammadul fadal gane ji woon ji di cheikh Bara gueye nek maire bu commune bu Daru Naim nek jëm ju ñu ràññee won ci ron keppaaruk sëriñ aliou mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim pas-pasam ak pasteefam akuk taalibeem ak diggam ak njabootu ku tedd ki Serigne Touba kóllëre gu dox diggam ak Cheikh Mouhamadul Mourtada mi loolu yi tax Serigne bi séqi woon ay jéego dem ci bërëb bii di Daaru Nayim ngir fekk ko fa bi mu ñëwee nag daal di nañu koy teeru moom Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke ak njabootuk Serigne Aliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ak dëkkandoo yi nga xam ne ñi ngi ci gox boobu di Daaru Nayim moom Cheikh Bara gi ngan gi nekk lu rëy ci moom ba tax na ay teraanga yu takk lool daal na koy amal jagleel ko jëmm ji di Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke. ci ngan gi itam moom Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke bi muy ñëw àndoon na ak sëriñ fàllu Mbacke moom Serigne Mourtada Mbacke ibnu Xaadim Rasul ak itam njabootug boppam ak lenn ci taalibe yi.

Cheikh Mouhamadou Mounta Mourtada di wax rekk ne ci turu njabootu sëriñ Aliou Mbacke ak njabootu Daaru Nahim ak njabootu mboolem taalib yi nga xam ne ñoo ñoo fekk ci Cheikh Baara ànd ak moom ci bis bi nga xam ne si moom nga ñëwoon di ko amal si bokk ko ak taalib yi yu bari ak ñi ñi yéene woon a yàlla dogal mënuñu agsi kàddu gi nag dañ koo boole sëriñ Cheikh Bara gi dafa wax ne daf koo boole lépp mu wax ci turu njabootu sëriñ Aliou ni ma ko waxee woon ak njabootu Darou Naïm ak taalib yi yëpp jox ko sëriñ Xaadim Mbakke moom sëriñ Aliou Mbakke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi lay jot li suñu nuyoo ak nuyoo njabootu Sëriñ Aliou Mbacke yëpp fi teew ak njabootu Daaru Nayim gi yëpp ak murit gi yëpp kàddu yi nag dara wërlu ko lu dul fedd suñu mbett fedd suñu cat ci sa jëmm ji ndax lii nga def day lu rëy rëy rëy daa rëy lool ci noonu. ndax ñëwoo fi ngir ngan waaye dangaa ñëw rek seet sa kër ndax wutali wuñ naag boru ki dëkkoon ci dëkk missionnaire yi te ñëw gi nga ñëw yàlla rek lañ koy seeral ne ne wutali wuñ koog ñëw nga fi Cheikh Cheikh Mouhamadou Fadil ñëwoon fekkoon fi magam ju mag ja magam ju baax ci seex Mouhamadou Sowa ba mu koy tudd dëkk bi dëkk bi tudd Daaru Naim tey ci làmmiñ sëñ Fallou la jóge sëñ amoon na weneen tur wuñ ko doon booyee waaye sëñ Fallou bu ñëwee la ko sëñ woon saa ne ko utal ñu utal ñu tur mu utal ñu leer nag tey boo ñëwee ànd ak sa njaboot gii ànd ak Cheikh Mahamadou euh, Cheikh Mahamadou Fadel Mali maam ak njaboot gi nga àndal ñëpp ak taalibe yi fekk si say say taalibe fekk fi sa njaboot kon loola. mbégte mu rëy rëy la mbégte bi làmmiñ nag eh, lot na ci tudd ko waaye dañ ciy feeñal suñu yéene rek di la xamal ne daal rëy na la rëy na lool ci noonu suñ njabootu sëñ Aliou yi nga xam ne sax njaboot lañ ñaari njaboot amu fi benn njaboot kon nag boo fi ñëwee yendu fi ci noonu dana doyal suñu dana dalal suñu xel dana xam ne kat nun ñii kat ah <clears throat> xëy na sëñ Aliou jóge na fi waaye jógewu fi ndax yéen a ngi fi seen tànk de tànk yu am solo di la ñaanal yàlla mi nga xam ne dara tëw ko mu yàggal lool fi suñu kanam ndax yow kat eh, ab sag nga ci yoon ndax sa jëf ak sa sa taxawaay gis nañ ko fenn ak eh, maanaam eh, misaal nga ci ab taalibe misaal ak taalibe misaal nga ci ab jullit misaal nga ci ab murit kon nag ñu ngi la ci sant bu baax di la ñaan yàlla mu gën laa kàtt na yàggale fi suñu kanam lool bégg nañ ci lool. di la xamal ne <coughs> Cheikh baar ak ñi nga xam ne moom dëkkal ci tund yi bégg nañ ci lool ndax seex Bara lu ko waaye defal rek nun nga ko defal kon nag moom ci boppam bégg ne mbigaay moo xam ne euh, li mu bëgg a wax xëy na làmmiñ dana ci lopp pour tudd ko waaye leen fu ngërëm di àgg fa cant di àgg rek cant li weesu ko ndax bis bi rëy na rëyaay goo xam ne mëneesu ko mëneesu ko xees kon ñu ngi lay sant bu baax di la ñaan nag nga ñaanal nu nga ñaanal nu bu baax a baax a baax te lii di doon lu sax loo xam ne fu ñu toll di ko mën def ndax de yaakaar yaakaaroon na de yaakaaroon na bu baax a baax a baax kon nag ñu ngi lay sant dina ñaanal di la ñaanal nga ñaanal nu yàlla dooleel nu saxal nañ ci liggéeyal sëriñ tubaax sax ñu ci ndigal te bañ ñoo fekk ci lenn loo xam sëriñ bi gërëmu ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. li nuyu nag ci turu jëmu ju baax ji di Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare. mu jël nuyoo bi nag jox ko mboolem jullit yi nekk fii rawante nag talibe yi ak mbokk yi jiital nag nuyoo bi ak cant gi ci ñi nga xam ne ay doomam lañ di wàkk suñu Aliou Mbacke yi. di nuyu baax nag Cheikh Bary Guèye Cheikh Bary ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant am na loo xam ne nag euh, sant la ngir dolli waaye ñaax la ndax lii mooy jikkoy talibe yàlla teral la. mosoo soppi sa doxin sa yar sa tegin sa njariñ lépp ci kër Sëñ Bàmba ku la xam ku ne xam ne ne lii doo nga nekk ñëpp ki lay dégg ak ki lay déggul ak ki jot ci yow ci yow benn Cheikh Ba Cheikh Bara de ab taalibe la Cheikh Bara ku baax la ngay def te yàlla rek a tax te doo njistal doo pogoriwu kenn mënu laa dugal ci àdduna yaa ngi deseeg sa bopp deseeg sa njulit deseeg sa lislaam deseeg sa taalibe mbokk yëpp itam nga am njariñ ci ñoom te mooy loolu mooy dëgg mbokk jaral na loolu ne mbokk nag bu ñu koy wax li ko Sëñ Tuubaa waxee woon nee na nit ak nit mbokk lañ ndax nit la ngay nit waaye nee na bis boo noppetee nga xam ko mu xam la léegi nit maanaam mbokk amatu fa bopp fa am sa bopp la nit ki nag mënoo ko jariñ te xamoo ko mënoo jëflante ak man te xamoo ko moo tax inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa xabaa'il li taarafu xam-xam nit xam la mooy waral njariñ génn ci nga ko mën a jàngal ci nga ko mën a dimbale <coughs> kon lii mooy li taarafu tey jii kenn ku ne gis na sa nawle doomu aadama boo ko xësee xam tey bu léegi nga ko daje nañ ko Cheikh Bara mu ne ah waaw nga dëgg bis ba fa suñ Mourtala di ñëw ànd ak suñ Fallu même suñ Mourtala muy xaritam di mbokkam di léppam suñ Mourtala foo gis gis ñu fa suñ Fallu ñi nga xamante ni tuddi nañ ci baayam kër ñu tuddi ko baayam noonu la àndee ci bokk gi seen ànd rafet lool foo leen gis gis leen kii fu mu mën na ne fu suñ fallu ne mu ne ko foo ne mu ne ko maa ngi sant suñ fallu lu mu sori sori fu suñ mortalaa nekk bu ko woy mu ñëw loolu ñëpp seete nañ wa ma shahidna ila bi ma alim na kon loolu mooy ak mbokk te suñu Cheikh Bara mi ci la nekk man tàgguma ko xam na ma yàgg nañoo ànd yàgg naa ko fekk fii ñëpp ñi àndal si seex Bara it xam nañ waaye ci lii laa ko xam Sëñ Tuubaa moo ko yor loo ko wax ci Sëñ Tuubaa jaral ko lii nga am nag ak murit moo la ko may waa kër Sëñ Bamba yi daal di ñëw fii xalaat ñëw gane si la yendu si la ci seen dëkk bii ak murit rek la ko may tund yi yëpp it nii la sa kër gi sante dëkk bi sant la ko noonu la ko tund wi sante boo demee Touba képp fay ab kilifa boo ne Cheikh baar mu ne sax moom maa moom mii ànd nañ benn bis ci suñu Cheikh Say ay 23 heures minutes kenn suñu Cheikh Say bi ko waxee mu ne suñ suñu Bara sama moom ñu dem ca suñ Xaadim Jaxate bi ñuy waxee man bu ñuy wax maa njëkk a déglu baat boobu mu ne Cheikh Bara Samb fu ñu dem rek loolu ngay njëkk a dégg nga xam ne kon yow euh, euh, li alxuraan wax rek euh, laa nu fare ko benn ahadin min rusuli loolu moo fi nekk moom amul xej seen ci waa kër Sëñ Tuubaa ku mu gis dana la teral ba yaakaar ne foofu nga dëgg te loolu mooy mbir mi loolu Cheikh Bara ci nga dëgg kon ñu ngi lay ñaanal nga gudd fan nga wér ami xéwal yaag sa ñëpp di ñaanal borom bi di ñaanal ak njabootam baax lañ ñu lañ ñu bëgg mbokk suñ talaan nag yow dañ lay bàyyi murit yàlla yi ndax yow fépp nga yemale képp koo xam ni nag am nga yitte ci nit ñi nit ñi dañu am ci yitte yow lii la lii nga am kat yaa ko defal yaa def ci nit ñi nit ñi di la ko fay kon Sëñ Tuubaa lii mu njëkk am yitte la himma am bu wér moo tax nit ñi joxat ko njukkal yow mi itam foo toog ñëpp jox la e, yitte ndax yitte yi nga am ci nit ñi rek la doraal ndax xeebuloo kenn kenn yitte kon nag Mbàkke duñ la xeebal sa daal ñu ngi lay ñaan nga gudd fan nga wér te yàgg fi yàgg képp koo mën naa dal war nañoo jàppalante war nañoo ànd war na nañoo euh, dimbalante a na ataawoon ala birri wa taqwa kon loolu rek fi nekk suñu baara jërëjëf